salaamaaleykum euh, waa senclic point com maa ngi di remercier ci seen déplacement bi ngeen def vraiment kontaan nañ trop maa leen woowoon pour euh, wax leen li nga xamante ni moo ñu metti woon ci suñu matière euh, bijouterie yi vraiment ñun am nañ ci li ñu metti mais liñ ci metti mooy bu ñuy wax artisanal aar moo tax mais nit ñi dañu fàtte aar secteur d'artisanat mais service laa gis ni moom lañ gën favoriser parce que ñun formation pour ñu am ko problème la difficile na ñu bëgg xam lan mo tax ñu négliger ñu ci côté bobu à chaque instant danañ ko demander ñu ñi wax ni nañ leen xaar parce que seen matière première dafa cher te seen matière première vraiment euh, seerut li ñu gis ñu koy jox nit ñi moo ëpp fopp suñ matière première loolu xam nañ ko bëgg nañ nag ñu wax ñu lan moo tax ñu négliger ñu ci côté boobu parce que soxla nañ ko yor nañ ay apprentis war leen jàngal métier gën leen a former mais outillage bi nga xamante ni war nañ leen ko mën a defal sax parce que amuñu ko loolu manqué na mais kon léegi nag bëgg na xam tamit lan lan ñu war a mën a jàppale ñu jàppale ñu defal ñu ko waaw bi moom compliqué wut parce que mënuma ko lim sax complètement mais am na ay siameto ciseaux comme machine à poli machine dàq ak yeneen matières yoo xam ne bëri na suñ toogee lan ko mën a gën a wax quoi mënuñu ko wax ci kii bi mais loolu daal vraiment soxla lu bëri loo xam ne war nañu ci mën a gën a jàppale franchement en même temps ñun ñu ngi am benn problème aussi euh, matière première d'or parce que comptoir d'or dañ ñu ko yàgg promettre ñun mosuñu ko dañ ñu koy wax rek mais mosuñu ko gis te vraiment comme or vraiment am na Sénégal ñun jotuñu ci loolu jaaxal nañu tamit war nañu wax tamit loolu lan lañ ciy xaar pour defal ñu ko quoi parce que matière première wax nañu comptoir danañ ko ubbi danañ ko ubbi Dakar danañ ko def raison yi mais gisuñu dara quoi depuis boobu ba léegi des années loolu tamit fi mu ne nekk na suñu problème parce que or léegi pour nga am ko Sénégal yombul léegi ñun suñ koy jënd dañ koy jënd si jigéen ñi nga xam ne ñooñu koy jaayaat te loolu vraiment dafay indi ay problème des fois parce que ñooñu doo xam ñoo ko moom wala moomuñu ko loolu lépp maa yi ngi comptoir d'or moo ko waral waaw euh, loolu daal bëgg nañ tamit ñu xool nu ñu ci gën a jàppale ñu jàppale ñu taxaw ñu parce que ñun bijoutier yi waaw vraiment loolu daal soxla woon nañ ko aussi